Euh, quand même lu mu leen apporteel mu mhm. di changement de communication bi nga xamante ni def ngeen ko entre 2021 ak 2024 mhm. tey am na ci yoo xamante ni mhm. man soxla naa xam est-ce que euh, amu leen ci benn regret boo leen di déggaat tey seen ay opposants di utiliser les mêmes termes les mêmes les les mêmes propos di leen ko jëmale yéen sachant que peut-être euh, euh, propos la yoo xamante ni xëy na du temps de l'opposition yéen a ko doon utiliser et aujourd'hui mu mel ni la situation s'est retournée contre vous. qui n'ont rien à voir avec le contexte actuel que nous vivons. ñoom termes yooyu ñuy utiliser amul benn lu ñu ko war a mën a méngale ak lii nuy dund nii ci ci ci ci réew mi parce que ñun termes yooyu ñu doon utiliser xaw ma yan termes sax ngay xalaat mais bu fekkente ni ay termes yu dur la également. c'est-à-dire ay termes yoo xam ne dañoo méngoo woon. ak nañ ba kàddu du wax dëgg sax duñ ko dañuy jaar ci digg bi. Euh, carrément. xam nga gatsa gatsa bi également même chose. mu benn <laughs> xeetu euh, euh, c'est-à-dire benn langage de de de de violence boo xamante ni dafay wane xëy na benn sës bu ngeen sësoon yenn à l'époque et aujourd'hui vos adversaires également utilisent ces mêmes propos pour. nos adversaires n'ont pas d'argument. xam nga bu fekkonte ni ñoom gis nañu ñun ñu am ay scandale ci suñu gestion wala fi ñu jëmale réew mi orientation bi baaxul en ce moment on aurait compris mais ñoom c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument qu'ils cherchent à di saaga comme comme vous avez si bien fait de le dire saaga naan premier ministre de nangam yegg ca président et cetera y en a qui ont les frais de de ça d'ailleurs malheureusement parce que dañu amul argument su fekkonte ni sax ñun dañ leen a teg pression bi nga xam ni ñun moom lañ ñu tegoon on aurait compris que ñu utiliser des termes aussi durs mais wax ma ban opposant tey jii nii moom la ñu bund xataal fii ci réew mi ñun ñi nga xam ni ñun la yàlla dénk réew mi jaarale ko ci sénégalais yi dama bëgg nga ñu wax ma ban pression la ñu teg à un opposant ba mu war a mën a utiliser ces termes la ah, ñun dama ne ah, la par réplique dama ne la par réplique mm-hmm. on a le ton par réplique en tout cas par euh, euh, résistance on a dañu bëggoon a euh, jàmmaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu teg pression bi moo tax on a haussé le ton loolu laa la wax. Mhm. waaye ñii. mais nañ ma wax ne ma teg nañu pression. tel proposé ñoom ils se parce que ku ci mel ni Bougane moom nee na. Mhm. depuis bi ñu bi ngeen installé woo yéen. déggoo mhm. leen benn opposition bu jug. mais ba nga xamee ni Ousmane ko commencé na di leen traité de délinquants fiscaux. ci lañu commencé ñoom aussi aussi le ton jàkkaarloog moom. Euh, mais c'est quoi un délinquant c'est quoi un fiscal. un délinquant fiscal c'est quelqu'un qui qui qui qui qui ne paie ah, su fekkente ni moom bugaan sàcc ay sàcc la ñoo dañuy. non un délinquant fiscal gis nga tubaab tubaab dafa les mots ont des ont des sens. mot bu nekk dafa am définition un délinquant fiscal mooy koo xam ni dafa dul pay l'impôt xam na ni war naa fay fayul. loolu mooy un délinquant fiscal mais su fekkente ni nag cette presse là une certaine presse dañ mere parce que ñun dañu bëgg a rétablir l'ordre dans ce domaine là mais nan ñu continuer di ñu mere il ne mënuñoo teree def suñu liggéey parce que citoyen bu ne danga war a fay l'impôt danga nga war a fay l'impôt waaye ñoom yemuñu ci bañ a fay l'impôt dañuy détourner l'impôt dañuy détourner l'argent public ça c'est un détournement détournement boo xam ne passible de poursuite pénale parce que boo détourné argent public dañ la war a suivre pénalement ñoom li ñu def du bañ a fay l'impôt de ñoom dañuy récupérer l'impôt yi nga xam ne moom la ñu war a tirer ci yéen liggéeykat yi ngi di yéen ñi nekk ci euh, média yi TVA yi nga xam ne la ñu récolté ñoom la ñuy jël détourné ko lekk ko jënd ci ay oto ak ay kër mais loolu est-ce que sénégalais yi war nañ ko nangu ñoom loolu lañ ñu meree dinañ ñu continuer meree parce que loolu dinañ ko rétablir am na groupe de presse yoo xam ne fi mu nekk nii d'ailleurs c'est eux qui commencé l'opposition au début il y avait pas d'opposition il y avait euh, des groupes de presse yoo xam ne finalement ñoom ñoo taxaw temm ne ñoom ñoo war a nekk opposition wu euh, nguur gi euh, pouvoir bi fii bu bees bi waaye ñooñu bi boo ñu xam ne dinañu pendant ces ces ces cinquante ans yi nga xam ne moom la ñu bëgg a yore Sénégal. ils seront ils seront amul waxtaan leen waxtaan ak ñoom. waxtaan wi tàllal nañ leen loxo waxtaan pour xool naka la ñuy war a fayee l'impôt ñoom. le ministre de la communication tàllal na leen loxo pour waxtaan. waaye nag ñoom ñoom li ñu bëgg mooy li fi daan am jékki-jékki rek ñu baal leen totalement ces détournements là. te yéen xalaatoo leen ko. non. wala am na loolu xel xel mënu koo nangu sax. mënuloo indi rupture ba pare mënuloo bëgg indi rupture ci réew ba pare des gens ñëw di détourne xaalis maanaam sàcc détourner sax c'est boo ko déggee ci wolof dafay mel ni dafa xaw a rafet ñoo xam ni dañoo dañoo dañoo jël décision sàcc àlalu Sénégal parce que impôt bi nga xam ni moom la ñu moom la ñu récolté ci seen ay travailleurs ak ci ay TVA yu ñu war a yi ñu récolter mais loolu du dara lu dul càcc mais sàcc bu fekkante ni loolu la kay nañu baal sàcc yëpp génnee leen ci kaso yi ku sàcc it ñu baal la le problème fondamentalement mooy ñoom nañu fay l'impôt yi nguur euh, président la république ak gouvernement bi c'est ñoom amuñu benn intéret ci bundu xataal benn citoyen biir boor boo mën a nekk nag surtout bu fekkee da ngay nga da nga nekk ci ci bërëbu liggéeyukaay au contraire dañ lay jàppale sax jàppale lañ leen di def tàllal nañ leen loxo pour waxtaan ak ñoom mais malheureusement y naa a qui continue toujours à et leen gisee cette façon tendancieuse de traiter l'information quelquefois ça fait même rire. est-ce que vous vous dama lay jox exemple rek ci li fi xew euh, bërki démb xam nga bërki démb dañoo fekk ay militants Pastef fële Ndar mais def lu ñaawa ñaawa ñaaw. gis nga bu baax image yoo xam ne dafay choqué sax nit ñi man ci sama bopp sax bugguma xool image yi yow wóor na ma ni bugguloo xool image yi mais boo seetloo am na yenn yenn yenn groupe de presse yoo xam ne bu ñuy quand ils ont traité cette information ils n'ont même pas parlé de cette agression xam nga lan lañ doon wax le discours bi Ousmane Sonko tenir mais ça c'est extrêmement grave mais les faits sont sacrés yéen loolu ngeen mhm. les commentaires sont libres n'est-ce pas. la laa loolu laa jàng ci seen ay kàddu mais ñoom au lieu que ñu wax ci fee ñu nekk di commentaire et commentaire de façon tendancieuse ces gens-là nag vraiment ces sénégalais yaa ngi leen di d'ailleurs ñooñu ces groupes de presse là sénégalais yaa ngi leen di dénoncer te fi mu nekk nii boo leen xoolee bu ñu defaatoon sondage dinañu gis chute libre bi ñu def euh, ci ci seen ci ci ci ci ci seen euh, téléspectateur wala seen audimat. léegi pour pour terminer chapitre boobu ñooñu nga xamante ni euh, li ñu warloo ak yéen defuñu ko en terme de d'impôt fi mooy mbirum fisc yeeg ci demee noonu. Mm-hmm. lan ngeen prévoir pour ñoom. Euh, am na ñu nga xamante ni certainement ils ont demandé des moratoires. Euh, euh, yéen accepté ngeen loolu. ou pas et et d' autres yi nga xamante ni actuellement ñi ngi vraiment ci benn situation boo xam ni précaire parce qu'on a vu des confrères yoo xam ni ñi ngi ci quatre semaines de de de grève parce que amatuñu salaire. la situation est vraiment précaire pour certaines presses. lan mhm. ngeen fas yéenee def ak ñooñu. mais vos confrères la n'en veulent vos confrères là certainement n'en veulent pas au gouvernement. ñi ñu war a mere du ñenn ñu dul seen patron yi ñi nga xam ni ñoo nekkul ci yoon mais maintenant nag euh, ñiy demander moratoire bu ñu ñëwee dañuy waxtaan ak ñoom sa moratoire mënuñu ko bañ ci l'impôt waa waa direction des impôts yow n'importe quel citoyen man mii bu ma amoon euh, boru euh, impo su ma demee foofu waxtaan ak ñoom mais di dañ may dañ may jox ma dañ may may moratoire généralement dañuy maye moratoire et man wóor na ma ni bu ñu demee waxtaan ak waa administration fiscale dinañu trouver solution ak ñoom maintenant nag ñoom li ñu bëgg moo mënta ne ñu baal leen lempo yi moom moo mënta ne il faut ñu fay parce que seen réew mi daf ko soxla. mais quand même vous pouvez garantir que loolu mënul conduire à ce que ñuy tëj ay télé comme parfois yu ñuy gis nga yenn nguur yi bu ñu wàccee ànd ak yenn médias yi. kenn buggul ku tëj benn tele kenn buggul ku tëj benn rajo. ñun suñu liggéey mooy fexe ba consolider la démocratie te télévision yi ak rajo yi les groupes de médias dañoo bokk ci lii suuxat démocratie kon à partir de ce moment là ñun du ñu def lenn loo xam ne luy tëj rajo la luy tëj télé la combien de groupe de presse ngay gis fii ñu ñuy attaqué à longueur de journée toutes leurs émissions sont consacrées à ça est-ce que pour autant ñun def nañu comme ñoom ñoom lañ daan def bul fàtte ni ministre ministre de la communication bi fi nekkoon ñaata télé la fi tëj combien de télé day ah, jékki-jékki rek jël benn démarrer ah xamuñu ba xam après euh, loolu après lay am wala. mais non on a la façon violente dont nous sommes attaqués par ces ces médias là su fekkonte ni ñële la waxuma la tëj rek waaye ñi moom télé yi sax ñu ngi ci kaso bi <laughs> mais yow est-ce que gis nga benn yoon bu ñu def benn injonction à une télé ne ko sa telle émission arrêté ko wala et cetera gisoo ko ñu def ko parce que nous sommes nous sommes des gis nga ñi ñu fal ci bopp réew mi ay démocrate lañu parce que ñun dañoo mës a gëm ne démocratie rek moo mën a jëmale réew mi kanam donc groupe de presse yi ku ci doxal yoon d'ailleurs am na ci ñoo xam ne doo leen dégg euh, vraiment ñuy ñu am yenn euh, comportement yu yi nga xam ne moom la ñuy ŋàññ parce que ñu ngi doxal yoon et j'imagine que 2S quand même euh, ngi doxal yoon parce man dégguma leen ci ci lu mel noonu c'est pas parce que je ici moo tax ma leen koy wax mais c'est parce que dama ko